mu ji ci wàllu santé ci réew mi yëral xët mu njëkko journal bi liggéeykati kër docteur yi di les travailleurs de la santé ñoo woote ab grève général nee nañu tey ji ci alxames yi dañuy toog fase seeni loxo duñu fase xànc ak morom sage-femme yi ci réew mi te banqaasoo ci nguur gi ñu naan leen sage-femme d'état yéenekaay bi nee nañu ñoom it maternité sans sage-femme la ñu fas yéene doxal tey ji ci alxames yi seen naataangoy sage-femme yu taqal ba ñu taq ripp ci faatuk asu soxna bu Louga la ñuy naqarlu ak di leen jàppale bëgg nañu it bésub ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci war a benn sage-femme ñu tëye ci la xewoon ci bay ñoom sage-femme yi réew ñu defu mobilisation dem taxaw ci seen wet l'observateur nañu ñoom sage-femme d'État yi ci réew mi démb lañ doon conférence de presse wax fa nag mboolem lu du coonaaki jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteel ci seen liggéey mu di niñ leen dëkkee agressé viol gi ñuy dund menace gi ñuy dund ak condition yu bon yi ñuy liggéey seen der bi ñuy yàq ak ni ñu leen di ngawta ngawteeka jaabaajoo ci réseaux sociaux it ñaawlu ñaawlu nañu Sarr génnoon ak la mu ca wax mënoon naa ñàkk ñaar fukki maternité ak benn yi nekk ci réew mi yépp la ñu fas yéene paralysé tey ji ca maternité yi ca Louga moom l'observateur nee nañu la fa amul fenn maternité ya nekk ca région ba yépp la tëj ngir vengé seen naataangooy sage-femme yu jàpp l'Obs nañu gis nañu fa ay jigéeni biir yu toll ci accouché waaye dañu leen mujj évacué ca Ndar Ndar ba Ndakaaru jàpp fépp ci réew mi direct news mi ngi ñuy wax bëggit yéenekaay bi ne nañu bokk nañ ci ñu jël kii di Abdoulaye Diouf Sarr ca bopp ministère de la santé docteur Souleymane Loukar bu hôpital bu Louga di leeral ci direct news ne rapport audit bi tukkee ci faatuk asu soxna rapport ba waxul fenn négligence docteur Loukar nee na rapport ba ay insuffisance la wax chef service psychiatrie bu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga di ñaan président de la république Macky Sall mu jël ay responsabilités am dàq Abdoulaye Diouf Sarr ndax lu ci système sanitaire mi rek moo ko yàq les économies juróom-benn sage-femme yi ñu gàll ay tuuma ca Louga ñoom yóbbu ca jëf joojee moo yokk joote ji moo ñuluk sage-femme yi ba tax ñu soobu ci defante sage-femme yi nee nañu bësub tey ji jigéeni wérul ju yaakaar doo accoucher ci réew mi réew mi quotidien bind ne secteur santé bi salfaañoo na fajkat yi xëy nañu ab grève général nga dem ci hôpitalub Louga grève ñetti fan la fa gaañi xëy sage-femme yi ci réew mi réew mi quotidien nee nañu amul lu ñu yàkkul démb ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ci jamono jooju yéenekaay bi nee nañu li ñu gis moo a kañoom bilam ci wàllu santé ak di sàkku ab anam yi ñuy doxale structure de santé yi la yéenekaay nañu Sall nee na nañu ko càmbaral doxalinu barabu fajukaay yi ci réew mi biir biti defal ko ci rapport jox ko ko jox leen ma le quotidien ma wax leen li xewoon ci ndogu li président Macky Sall woote woon keroog dajale woon ca mboolem leader yi benn bokk yaakaar yi ndogu plus la ko le quotidien tuddee fukki waxtu yi lëmma toog nañu ca di ca waxtaan ci élection législative yi ñu jëm fale leen Macky Sall waxee ne bu ñu booloo kenn àttanuñu waaye bu ñu am sursoi nañu moom Macky dem na ba yegg ak ñoom ci di leen wax ne il faut que dañuy booloo doon benn bokk benn jëmuwaay bu ñu bëggee gagner élection législative yi te bu réere mbir ne suñu ëllëg ci bopp réew mi ci élection législative yi yi ci liste bind ne maître Wade mi ngi sàkku ci opposition opposition bi yëpp ñu booloo doon benn ngir jàmmarloo ak nguuru Macky Sall gi